kenn ku ne xam na ne bésu tabaski cër yi nga xam ne rôle yi nga xam ne am na ko benn journée la boo xam ne ci wàllu koom-koom journée bu am solo la parce que mën naa ne luy tolloog cinquante à cent milliards moo nekk en jeu en une journée kon journée bu am solo la moo tax président de la république son excellence Macky Sall jël ay matuwaay yu am doole mu ne nañu def suñu kémtalaay kattan pour que sénégalais ak bu mu mën di doon ak fu mu mën di nekk mën a am xaru tabaski moo tax mu ne déjà lépp loo xam ne taxe la woon bu état doon jël di ko teg ci jënd ci xar yi nee na dindi na ko ba mu jeex tàkk waaye yemul ci loolu ñi daa jëli xar bokk nañ ci li ñu doon euh, ñaxtu mooy ci camion yi indi seen jur seeni jur de daga ga daa dee wala mu gañu mu ne may camion bu ne mu am ñetti nit ci gannaaw pour mën surveiller seeni xar mais benen mesure bi te mu am solo lol mu wax gendarmerie mu wax police mu wax douane contrôler len waye nak na ngeen ko def au strict minimum c'est-à-dire li munul ñak mais en plus de cela également néna site yi nga xam ne foofu la borom jur yi di taxaw pour xaar consommateur bi pour xaar client bi na ngeen ko aménager ngeen def fa courant ngeen def fa ndox ba pare ngeen appuyer leen ci aliment li nga xam ne wàllu jéggaani xar yi déjà au niveau interne ci suñu biir réew fan yi ci ñu jëm incha allah prévoir na def une tournée nationale wax leen que ne demande bi mu ngi fi ñaar ne leen ne ne lii président jël ngir accompagner leen pour mu yomb mais aussi surtout de motivation pour que nit ñi sawar ci ñaareel boobu dolli mettre nañ en place benn plateforme li yëkkati plateforme bi lenn la mooy que ñu mën mettre en relation mettre en relation mooy lan mooy que ne képp koo xam ne da nga nekk jaaykatu xar ci biir réew mi suñuy service dinañ jël say xar yi nga am jël sa numéro téléphone jël sa adresse jël aussi fa nga namm jaayee ñu dugal ko ci site bi demandeur aussi mën na nekk Dakar mu ne dama bëgg xar soxla naa xar mu inscrire ci demande yi des ce fait que yow mi demande ak kii di offrir ñoom mën nañu xamant mën nañ gisante mën nañ deflante te ministère élevage du du ci feeñ benn yoon mais j'en profite aussi pour surtout inviter les consommateurs sénégalais à ce que nous jël seeni dispositions pour nous montrer jëndi xar xam parce que tey ci tey opérateur bi su ñëwee indi ay xaram jaay mu indi 500 xar tok ba 3 jours presque jaayul dara kooku non soko waxé na dem doli 300 yenen c'est risqué il ne le fera pas et il n'a même pas le temps parce que ben, tabaski jege si na coow bi bari na. chauffeur bi ci boppam ñibbi na parce que camionneur yi aussi bu ñu fàtte ñu ci bari dañu julli ji kon possibilité mu jëliwaat yombul lii dafa mënul ñàkk su mënul su mënoon a ñàkk dañ koy ñàkkal waaye mënul ñàkk comme ku mënul ñàkk nag ñun aussi ñu jël ay disposition zone yooyu mu bañ am riche mu bañ am rassemblement nit ñi nga xam ne kenn ku ne xam ne bokk na ci vecteur de transmission de cette maladie la li nga xam ne moo jëm ci wàllu FONSTAB ñu gën koo fonds d'appui à la stabilisation je le répète euh, yalla def na président de la république def jël 3 milliards def ko ci fonds bi pour accompagner éleveurs ak filières et par rapport à 3 milliards pour opération tabaski bi kessé daw moment bi ñu nekk ñu ngi amone luy 63 millions de financement sur fonds STAB ren maintenant, fait au moment bi nous wax ak 1 milliard 300 ak lu top, luy luy correspond correspondre sept projets kon lolu non damay ne mënuñ lu dul rafetlu ko sante ko mais aussi wax population bi que ne doomu adama ak bu mu mën di doon suy góorgóorlu di kër kër yi waaw góor lu tuuti la waaye lu am njariñ la ca kañ koy def